jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu euh, yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 tey ci euh, samedi ji ñu dellu am mbégte ñëwaat ak yéen ci seen émission pencum réew mi muy émission boo xamante ni samedi bu jot lay am bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diawa Diallo moo nekk ci wàllu technique bi. mbokki nag euh, tey si samedi ji ñu dellu am mbégte daal di euh, dalal El Hadji Momar Samb moom mi nga xam ne nag moom mooy secrétaire général bu euh, RTAS ba pare nekk membre ci conseil économique social environnemental jiite fa commission bi nga xam ne moo jëm ci wàllum ndaw ñi éducation liggéey ak wàllum xëy ñu koy wax commission jeunesse éducation travail emploi moom la moo jiite commission boobu ci conseil économique social environnemental Euh, danañu daal di euh, waxtaane nag euh, ponk yu baree bari El yi Momar Samb am nañu mbégte bu baax a baax dalal la fii ci réew mi FM nga nuyoo ak sunu mbokk auditeurs yi ak auditrices yi. baax na Abdoulaye Seck maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci dalal bi di nuyu timit say auditeurs bii dugguleet invité woon nga ma fi bés. Euh, kon bi mën naa wax ne euh, ñaareel bi yoon la kon maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ci profité nag ci mawlid ji pour euh, ñaanal ñëpp jàmm ñaan ñaan yi lawlaat yi fi nit ñi def lépp mu doon ngëneel ci ñoom ngëneel ci réew mi ngëneel ci àdduna bi jërëjëf euh, El Hadji Momar Samb ñun tim am nañu mbégte bu baax a baax invité la fii ci réew Rewmi FM euh, yow yaay ñu fàttali yow yaay secrétaire général bu euh, RTAS nekk conseil économique social environnemental suñu première question nag moom mooy xam nga ne tey la élection présidentielle fi nga xam ne moom mooy ci Côte d'Ivoire mu nekk élection yoo xamante ni tey euh, campagne bi la fa xew gis nañu ko tension bu baree bari euh, am na ci moom la réew ñenn ci opposition bi di woote li nga xamante ni moom mooy ab boycott du mooyu élection yi euh, fexe élection yi bañ a am lan moo ci sax xalaat El Hadji Momar Samb mm-hmm. jamono ji ci Côte d'Ivoire ak élection yi nga xamante ni moom lañ fay amal tey ji si samedi ji waaw loolu moom Euh, ñëpp la soxal ci euh, àdduna bi rawatina ci Afrique te Côte d'Ivoire ñu bokk ak moom euh, CEDEAO bokk moom UOA UMOA mooy loolu dafay nekk loo xam ne mën naa wax ne suñu ay xarit lañu suñu ay jegeñaale lañu suñu ay dëkkandoo lañu kon lu fa am lu ne war nañoo soxal li ma ci xalaat ndeg mooy. sama sama sama sama sama sama eh, ma sañoon eh, mbir mi dina dem ci jàmm nañ ko dox ci jàmm ba mu sotti ci jàmm li ma ci xaw a jaaxal mooy eh, ñi xam ne dañu bokk ci élection yi ba tabb ku nekk sa candidat taxaw ne dañuy boycotter élection yi loolu man xaw na ma jaaxal parce yàgg nañu depuis ci jamono yi ñu commencé bindu ñoom ñëpp dañu wax ne mbir yi ni mu nar a demee ñoom du ñu nangu troisième mandat bu bu naka lañ koy waxati bu Alassane Ouattara voilà et que ñoom lu ñu def mooy euh, euh, désobéissance civile maanaam daal fexe ba baña nangu lépp lenn lu fay dox te muy yëngatu ci wàllu politique wala ci wàllu euh, mbiru doomu aadama euh, li ma ciy jaaxal mooy euh, bu ñu bindew ba pare bu ñu ne dañu boycotté élection yi bu lépp taxawee nu ñuy def loolu moo ma ci jaaxal kon na xëy na leneen am na lu ko gën mooy bu fekkee ne ñoom yaakaar nañ ne mbir yi jaar na yoon. ñu ànd bokk ci élection yi bu ñu jaarul yoon ñu génn bañ a bokk ci élection yi loolu daal moom ci xaw a jaaxal bien bu dul loolu li xam ne moo gën mooy ñu sàkk waxtaan déggoon naa sax ne euh, Ouattara ak euh, euh, Bédié waroon nañu gisee ngir waxtaan ngir jàmm dellu si ba ñu mën a def élection yi waaye jamono ji moom ya ragal naa ne bu élection amee musiba mën na am li xam ne moom lañu ñu mënul natt mooy fan la askan wi tollu ci loolu ndax li gën a jafe ci xalaat ci beneen réew mooy askan wi doo xam fu mu toll ndax ñu amoon nañu fi troisième mandat Ablaye Wade bañ ko xeexee euh, génn ci mbedd mi conseil constitutionnel def ne dëggal na ne kii yoon may na ko mu def troisième mandat boo fàttale ko Sénégal nit ñi dafa mel ni bu dul ci réewu taax euh, ñi dañu tekk tekkaaral bu élection yi jot ñu dem wote ji foofu baatu askan wi buñ ko génnee ñu wote ne euh, faluñu Ablaye Wade ñu dem deuxième tour ñu gagné Ablaye Wade euh, yaakaar na ne daal mbir yi buñ ko toppee noonu boo sàggantu boo sàggantu loolu moo du gën parce que ñun fu ñuy taxaw di wax toujours mooy seet lan mooy taxawaayu askan wi ah lan mooy gën ngëneelu askan wi ci situation bu ne. Euh, El Hadj Momar Samb Côte d'Ivoire am na loo xamante ni xewoon na fa 2010 réew ma tàkk ñu am ay jafe yu baree bari ba ñu tegoon loxo ki nga xam ne jamono jooju moo ko jiite woon di Laurent Gbagbo ak soxnaam ñeneen ñoo xam ne àndaloon na ànd nañu ak moom ndax tey. homme politique yi nga xam ne ñoo nekk Côte d'Ivoire xam ñu nekk ci opposition bi moo xam ñu nekk ci pouvoir bi am na lenn loo xam ne jàngee nañ ko ci la fa xewoon 2010. ah euh, ñàkkul euh, ñàkkul ñu am luñ ci jàng waaye dafa mel ni njàng bi des na ndax euh, lu mënti xew am na loo xam ne opposition ak pouvoir war nañ fa mën daje ba ñàkk réew mi aar ko ci loo xam ne du ko yóbbu ci beneen fitna ba ay nit di fa dee waaye moo tax ma ne ñàkkul ne am na lu ñu des ci jàng mi. te man li may seetlu toujours ci mbirum politique liy des ci njàng mi li koy waral mooy bëgg-bëggu ñi xam ne dañu bëgg jël nguur wala ñi bëgg a desax nguur euh, lu bari duñ ko bàyyil njariñu askan wi ak njariñu réew mi ndax dañu toll foo xam ne liy sut lépp man lépp man ñëpp mooy njariñu askan wi loolu moom lañu ñu war a jiital donte. ku nekk am nga sa bëgg-bëgg am nga sa ambition waaye li am solo mooy li xam ne moom lañu ñu war a jagleel réew mi te du moomeelu kenn ci ñoom ku ne yaa moom sa ambition waaye askan wi moom euh, njëriñam moo war a féete kaw ambition ku ne. d'accord euh, euh, El Hadji Momar Samb ñu jógee Côte d'Ivoire nag ñëw fi nga xam ne tamit mooy Guinée Conakry Guinée gis nañ ne foofu tamit. Euh, élection yi nga xam ne moom lañ euh, génn ay bés yi ñu génn foofu ci Guinée Conakry euh, gis nañ ne kuréel bi nga xam ne moo yoroon lépp lu jëm ci wàllum élection yi di seeni ñoom dañoo wax ne résultat yi nga xam ne moom lañ jotagun Alpha Condé moom moo gagné Cellou Dalein jàlloo nanguwul loolu nga xam ne mooy élection yi am na sax ay kuréel yoo xamante ni ñëw nañ fa ngir dox tànki jàmm ñu si mel ni CEDEAO Union africaine ak waa Nations Unies Euh, élection yooyu ca Guinée Conakry yow euh, lan moo ci sa xalaat ak la nga xam ne moo fa jot a xew. Euh, xëy na di ma may sax balaa maa tabbi ci Guinée fàttali ne Côte d'Ivoire la fa amoon 2010 aussi jar nañu bàyyi xel ndax tubaab yi ñu mel ni France dañu taxawoon temb ba am fu ñu féete ki xam ne moom mooy watara fexe ba ñu génnee Gbagbo euh, te boobu ba léegi mu ngi ci mbugal loolu aussi jar na bàyyi xel lu tax ma wax ko mooy ñun suñu réewu Afrique yi dañ dul bàyyi xel léeg-léeg ne borom alali bitim réew wala réew yi xam ne ñoo nootoon démb dañu am toujours loxo bu ñuy dugal ci suñuy mbir dañu am toujours bët bu ñuy teg suñuy mbir loolu dina ba jar nañu bàyyi xel ba lépp lu ñu song mu waxati ko war nañu jiital njariñu askan wi lu ko may mën nañ faa jaar réew ma tàkk demee noo xam ne du ngëneel ci askan wi ëllëg bu ñëwee ci Guinée tamit lii fa am euh, boo ko méngaloo Côte d'Ivoire sax da nga naa xëy na ñoo xaw a niroo ndax kii troisième laa lay laaj euh, conseil constitutionnel nangul ko ko euh, ñu dem ba ci biir kii xam ne sax moo gën a fës ci kujje gi di Dalein jàlloo seelu daleen jàlloo dañu bokkoon ci benn langue boo xam ne dañ ne ñoom duñu bokk ci élection yi du am waaye moom génn na ba bokk ci élection yi ak ñeneen ah, seeni nag wax li mu wax mais sama seetlu bu njëkk mooy man comprendre mu woon lu tax daleen ñu génn ñu génn ci élection yi rek ci suba ko rek mu ne moo gagné premier tour o ay nitam te man li tax ma wax loolu mooy saa yu manifestation daan am gine ay bakkan day te boo dee ut jàmm ut li may doon wax day dellusi liy gëneel askan wi même bu fekkee ne sa ambition muy moom muy Condé ñëpp laa ñëpp laa ci yemale muy opposition muy pouvoir dafa am loo xam ne waroo ko def loo xam ne day indi fitna te mu wóor ne boo ooyee nit ñu génn bakkan dina rot loolu man mënuma ko nangu waxuma sax comprendre mais mënuma ko nangu bu fekkee ne da nga bokk ci ay dafa am ay kuréel yoo xam ne ñooy saytu ci élection yi mooy kuréel yoo xam ne dafa yoonu muy séeni muy conseil constitutionnel ñu ne mbir mi nii lay tëddee ñëpp dañ ko war a nangu yow nga bokk ci nangu loolu da ngay xaar ba ñu joxe seen seen seen seen waaw wala seen déet nga mën a nag taxaw ne andi naa yii euh, ne ne. l'élection yu jaarul yoon maa ngi dégg barka démb sax démb la ñu ne ñoom def nañu conférence de presse ñoom ñëpp booloot boolowaat nañu seen bopp ñoom ñëpp moo xam ñi bokkoon ñi bokkul def conférence de presse ne dinañ def recours kon ñu ngi dellu ci yoon te cee ñoo xaar yoon réew mu mënti doon yoon bi bu fekkee ne euh, génn na yow bu fekkee ne contesté nga yoon tëral ne sa contestation baax na wala yoon tëral ne sa contestation baaxul waaye bu fekkee ne da nga bëgg a fajal sa bopp ne nag da nga koy xeex dangay génn nit ñi ci mbedd mi xeex ngay indi kon yow nangu nga ne nit ñi dañu war a jaay seen bakken ci loolu rek loolu mën daf may yéem moo tax euh, li ma waxoon ci Côte moom lay wax fii mooy ni seen xel dellu see ñoom ba ñu ne dañuy arrêté manifestation yi Euh, def recours loolu mooy li gën a baax waaye am na lu luñ ci toftal loo xam ne euh, duma ko rafetlu te dinaa jàpp ne boo sàggantul dina indiwaat fitna parce que dañ ne fii ba mardi duñu def dara waaye après de mardi nañ def manifestation euh, ma waxati rek muy sama réew muy réewu jàmbur lépp loo xam ne ñun fa la ñu taxaw mooy njariñu askan wi fan la féete mënoo wax ne ci daleen la féete ci Condé la féete askan lu ci bopp peut-être ñoo mën a wax seen njariñ ñoo war a wax seen xalaat ñu war seen taxawaay ah lii xam ne moo xew réew yooyu nag li mu ci ump dina tax ba du am na foo xam ne du ma fa mën a yegg. léegi euh, El Hadj Momar Samb euh, fu si mel ni Guinée Conakry gis nañ ne CEDEAO euh, dem nañ fa Union africaine ak Nations Unies gisante nañ ak ak langue yëpp waaye ñi nga xamante ni nag ñoo fa faatu tamit. Euh, ñoo fa faatu euh, bari na trop euh, ñenn ñi jàpp nañ ne tamit opposition bi Cellou Alpha Condé dafa deful ay élection yu leer nan nga jàpp ne moom la Guinée waroon a moytoo ña fa faatu ndax am nañ nit ñu bari ñoo xamante ni faatu nañ ci réew moomu. Mm-hmm. beneen bi tamit gis nañ ne Union européenne ñoom wax nañ si nee nañu am nañu xel mu tey kana élection yi dese naa leer. Mm-hmm. ba nga xam ne waa seeni ñoom tamit génn nañ indi leen tontu. Mhm. loolu euh, lan moo ci sa xalaat ak sa jàngat. waaw xam nga lu ci mënti xew tamit euh, bu ñu toogul waxtaanee ko parce que muy seeni génn nañu ay résultat ñële nee nañ nanguñu résultats yi dañuy dem ci yoon faw ñu bàyyi yoon mu wax xalaatam. bu fekkee ne dañu euh, ñi xam ne ñooy waa Union européenne dañu ñëw tamit ñoom seetlu parce que li ma jëkkoon dégg mooy nee nañu woon élection yi daal euh, euh, amoon na ci jàmm waaye fekkee ne nañ ñoom aussi gis nañ loo xam ne leerul ci résultats yi nañ ko indi jàppale nit ñi pour boole leen ñu toog waxtaan ndax dara jarul ay wi xam ne bu fa juddoo doomu aadama yu bari dañ fa dee te man gisuma réew moo xam ne lu dul par parloo bu am waa Union européenne wala ñeneen ñoo ñëw régler ko doomi réew yi ñoo ko mën a régler seen bopp waxtaan seen biir seet ban taxawaay li ñu am jiital ci taxawaay yépp li xam ne mooy njariñu askan wi bu laajee ñu defaraat élection yi ñu defaraat élection bu laajee ñu ñu nangu élection yi ñu nangu élection bu laajee ñu def gouvernement sax d'union nationale ñu def gouvernement d'union nationale waaye dara jërul xeex boo xamee ne ay bakkan yi ñooy rot Guinée defaat tardement boo xam ne ci développement kenn du xam fu mu yem loolu laay jiital bu Condé aussi bu fekkee ne li mu def defu ko deful li ko war fële aussi Seydou Diallo Diallo bu deful li mu war a def ba sàmm aar njariñu askan wi aar bakkanu askan wi deful lu ko war ñoom ñaar ñëpp laay boole ci même considération boobu ñun fi ñu toll bu ñu sañoon Sénégal li koy jàmmal li koy féexal mooy ñi mu dëkkandoom yi mu xam ne ñoo bokk dénd bi ku ne ci jàmm ndax lu xew foofu dina dal suñu kaw boo seetloo Guinée yu bari ñu ngi fi ñu bari jóge nañu Guinée yàgg na sànc fi ba doon ay Sénégal am na ñoo xam ne dañuy dem di ñëw te bari nañ ci Sénégal mu mel ni ay dootuñu rek ay dëkkandoo ay mbokk la lañuy moo tax lu lu lu lu lu xew foofu foofu ñu yëg ko moo tax daal ñun lu ñu ñaan bu ñu soñoon CEDEAO taxawaayam euh, waa Union européenne seen taxawaay Union euh, africaine surtout muy CEDEAO Union africaine ñu ta am taxawaay boo xam ne dina tax dara ban fa xewati voilà ah, léegi lépp ñu def ko ci jàmm rek. léegi euh, El Hadj Momar gis nañ ne ñaari réew yooyu yëpp nga xam ne am nañu ay jafe-jafe euh, ci seen élection yi ñetteelu mandat moo ko waral mm-hmm. euh, mbirum constitution ci Afrique yow lan moo ci sa xalaat ak ñetteelu mandat yi nga xam ne moo tax ñaari réew yooyu am ay jafe-jafe. loolu waxtaane woon nañ ko ci assises nationales yi ba jàpp ne fa ñu war a jëm mooy fexe ba yemale mandat yi ci ñaar. Euh, tënk ko noo xamee ne dara dootu ko mën a jéggi euh, loolu bu ko ñëpp toppee yaakaar ne sax buñ ko toppee ba fas ko buñ ko fasee ba fas ko CEDEAO peut-être ba fas ko sax Union africain waaye nañ yem suñu dénd bi CEDEAO xëy na dina doon li waaye jéego la boo xam ne yegg seeguñu fa moo tax yëngu-yëngu yi bu amee CEDEAO du ci mën a tontu ci wàll woowu. ne yemaleen fii ki yemal fii parce que souveraineté pays bu ne day génn maanaam moomeelu bopp réew mu ne day taxaw ndax réew mu ne ah askan bi naan ñun ñoo am sañ-sañ tabax constitution bi nii lañ ko tabaxee réew ne ñun fii la ñu yem ñu ne du ñu yem la léegi la dem ba ñu ne dañ ko yemale ci ñaar euh, président bi changé constitution bi waaye ñu ne bu changé constitution bi du indi dab dabal ci li xam ne moom moo amoon démb am na fi sax réew yoo xam ne changé cinq constitution ku mel ni Rwanda waaye coow jubul ba ñoom ñu dem ci léegi sax amatul limitation de mandat ka fa ne woon depuis 1994 ba léegi Kagame moo fa ne mu mel ni kon yooyu yëpp day wane ne réew yi bokkuñu taxawaay ci mbir moomu waaye ñun dañu jàppoon ne li gën moo ñu yemale ko loolu nag doon na mbir moo xam ne réew mu ne di nga jànkoonteex moom ay waxtaan rek la mën jur ba ñoom ñu mën a xam fu ñuy féete. d'accord El Hadji Momar Samb lu jëm ci ñetteelu mandat fii ci Sénégal coow li euh, ñu bari ñoo ngi koy ñoo koy wax. que ne Macky Sall euh, président de la République euh, ñenn ñi dañ ko njortu ne dafa bëgg def ñetteelu mandat. ba nga xamante ni li si jot a xew lépp dégg nga ko. am na ay farandoom yoo xam ne génn nañu wax ne ànduñu si ñetteelu mandat ñu dàq leen. ñenn ñi jàpp ne looloo tax ñu dàq leen. am na tamit ay jege ñaalam yoo xam ne wax nañ ne am nañu war na Macky Sall war naa def ñetteelu mandat am na sañ-sañ bi te gis nañu dara fekku leen si coowul ñetteelu mandat ci senegal yow lan moo ci sa xalaat. man euh, coow li mën daf mu ëlëm lu tax mooy euh, coow ci njort man laa mënul comprendre dañu njort nañ li ñu def ko coow def ko nag problème damay faral di wax ne nit ñi bu ñu amoon ak tey bañ a nettali gént seen moroom wala di coow ci njort xam nga coow ci njort moom du génne dara parce que ñi naa lii la dañuy gam-gamlee rek waaye yor émission lëmm di ci wax ci wala yor euh, euh, euh, meeting wala réunion di wax rek ci njort man dama xamul jooju wax fan la fan la fan la fan lay fan lay teree man li ma jàpp mooy surtout ñun ñi xam ne dañu gunge Macky Sall ànd ak moom ba ñu fal ko premier mandat ñu fal ko deuxième mandat ñu waxante askanu lu leer amagul sax ñaari at ba mu ba mu commencé jub amul woon sax at <laughs> ñu koy topp di ko topp ba léegi lu xew rek ñu méngale ko wax loolu ñun dañ suñu parti dañ ne ñun du ñu dugg ci coow loolu. Macky Sall sax wax na ko ñaan ñin ñi nañu bàyyi coow bu ñu topp coow loolu parce que coow àndul ak timit liggéey. mais am na ñu ànd moom ñoo xam ne ñu doon. ñun génn nañu déclaration communiqué na ñun fi ñu taxaw ah li ñu jàpp mooy loolu diversion la. yéen ñan RTAS. ñu jàpp ne moo xam ñu nekk ci majorité nekk ci nguur gi jege Macky Sall wala APR wala ñu nekk ci alliés yi moo xam dañ ne loolu waruñ ci wax c'est de la diversion diversion mooy lan réeral nit ñi ci coow lu bari loo xam ne day. effort yi aw lii war a dem yëpp yaa ngi koy dem ci ay coow coow lu aju ci njort ñu ne loolu amul bopp amul genn nañ taxaw ci li ñu diggante wax askan wi xam nga jamono bi nu mu méttee mbas mi fi am ah mbirum immigration clandestine bi ak yeneen ak yeneen ñu am lenn lu ñuy def lu dul di coow ci njort loo xam ne dina am parce que bés dina ñëw mbir mi dina taxaw bu boobaa ñun di ngeen ñu dégg bu boobaa ñeneen ñi aussi dañ leen dégg ñu ne ah jot na nag léegi ñu wax ci te mu wax si Macky wax ci mu ñàkk see wax bu boobaa li xam ne mooy xew mooy nit ñi foog ñu taxaw wax ci kon man jàpp naa ne fi ñu toll nii man de li may digle ñi bokk ñi ñi bokkal di liggéey ci majorité bi loolu ñu bañ ci wékku di ci wax di ci coow di ci sonn et di ci def loo xam ne. amul benn njëriñ mais yéen majorité bokk ngeen signé di polémique bi. ñàkkul mais xam nga majorité bi. dama la wax ne bi ñun dañ ko jàngat bañ ko jàngatee lañ ci wax mooy majorité dañ leen na yéen ngeen bokk majorité oo ma sax majorité ngeen bokk APR ngeen wax ci c'est la diversion ah, ñun ci la diversion parce que boo seetloo mbir mi yàgg nañ ko génnee depuis après élection yi rek commencé na génn def naa benn homme de droit moo ci jëkk a wax ñun ñu commencé ba léegi fayul ne loolu man nuñ ci mën a toppee di wax di entretenir dans l'esprit que lii mën na am lii mu ñàkkul am lii mu ngi nii mu ngi nii ba xelu ñin ñi ah njortu ñin ñi ak xalaatu ñin ñi ak euh, yéene ñin ñi ak seen mébét yëpp jëm ci loolu rek amul njariñ d'accord léegi euh, El Hadji Momar Samb euh, il faut ma laajal si benn laaj ndax tey si sa biiri kàddu hmm. ak ndaw ñi lay déglu yëpp lu jëm ci wàllum euh, moral dañ koy faral di dégg ci say kàddu ndax xam nga yow 2012 wala 2011 jàpp 2012 li fi xewoon mooy yow nga ko doon xeex président Macky Sall di ko xeex bokk na si bañ Ablaye Wade def ñetteelu mandat ci Sénégal ndax da ngeen a jàppoon ne jaaduwut euh, euh, jaaduwut léegi jamono jooju tamit bi Macky président Macky Sall nekkee njiitum réew def na ay video yoo xam ne ma ngi ci internet bi. Mhm. peut-être yow gis nga ko muy wax ne bu ñu ko falee deux mille dix neuf mooy nekk deuxième ak dernier mandat mhm. euh, yow en tant que secrétaire général RTAS. Mhm. El Hadji Momar Samb. ndax jàpp nga ne problème ñetteelu mandat dafa war a jeex ci Sénégal. Euh, ñàkkul dama la wax sànq na ñun. fa ñu taxawoon démb di wax mooy fexe ba aar mbir yi iir ko noo xamee ne suñu suñu conclusion yi assise nationale mooy nguur wu ne def ñaari mandat loolu moom la ñu jàppoon boobu ba léegi ci loolu ñu ne 2009 parce que ñun ñu ngi def assise yi 2008 mu jeex 2009 mm-hmm. léegi li nga dégg Macky Sall wax ñëpp ñëpp ci ànd li nga déggoon Macky Sall li nga dégg nag Macky Sall wax ko waxati ko waxati ko tëj na bépp xalaat boo xam ne war na wax ni walla wax nale li ñu war a jàpp rek mooy bu fekkee ne dañu bëgg a wax troisième mandat def ko coow loolu buñ ñu ci yëgsee ku nekk na ci am gis-gis ku na ci am ne na ci am taxawaay. foofu daal laa ci. mais ci gis-gis. nu non non pour le moment ndax Macky Sall dina def troisième mandat wala def bu fekkee ne loolu mooy coow li te loolu mooy coow li. coow li du li ñu waxante woon coow li du li Macky Sall waxante waxante woon ak ñun ñi coow li mooy ndax ki dina ko def wala du ko def dina yem ci ñaari mandat wala day dem ci ñetti mandat ma ne loolu bu bu jotee nañ ci wax. d'accord. jërëjëf euh, El Hadji Momar Samb mbokk yi moom moo nekk secrétaire général bu euh, RTAS nekk euh, membre ci conseil économique social environnemental jiite commission jeunesse éducation travail emploi moom la ñu invité tey ci samedi ji ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu ñu daal di wax ci li nga xamante ni moom mooy pandémie bi. Euh, coronavirus euh, El Hadji Momar Samb ba léegi nii euh, wopp ji ma ngi fi teg na ay jafe-jafe yu mette métt nag àdduna bi réew yu bëree bëri fii ci Sénégal réew mi tamit am na si ay jafe-jafe yow lan moo ci sax xalaat. waaw suñu xalaat bu jëkk nag te ñu waxtaanee ko tamit ci parti bi moo di Sénégal dafa mel ni jamono ji mbir yi muy wàcc ndànk-ndànk loolu. lu ñu war a rafetlu la euh, rawatina sax ay benn organisme bu nekk bitim réew bu wax ne Amérique sax la féete Sénégal daal ni mu yore euh, pandémie bi taxawaayam ci pandémie bi ci mbas mi taxawaay bu rafet la euh, ba ñu ne ko ci fanweeri réew ak juróom benn yu ñu jàngat ñoom Sénégal moo féete ci ñaareelu place bi euh, ci ginnaaw Nouvelle-Zélande euh, Nouvelle-Zélande réew mu tuuti 5 millions d'habitants ak lu topp euh, nekk premier pays africain ci yorinam loolu jar na bàyyi xel ndax daf ci raw réew yu bari réew yoo xam ne sax ñoo ko ëpp doole ñun dëgg yemuñu ci loolu ñun RTS. dem nañu seeti le professeur Bousso le docteur Bousso mi yor le centre des urgences euh, waxtaan ak moom le centre opérationnel des urgences euh, waxtaan ak moom euh, ci wàllu woowu mu xamal ñu ne moom ñoom mbetteel lañ ci am sax ndax yëguñu ko woon waaye bañ ko seetee dañ leen wax ne li waral mbir mi mooy dañu seet réew yi ak seen dayo ak seen tolluwaay seen mën-mën ñu gis ci réew moo xam ne seen dayoom dooleem wala mën-mënam amul sax fu mu toll waaye mu am ci taxawaay boo xam ne dañ ko rafetlu ñu ne ko ban taxawaay la ndax ñun am na ñeneen ñoo xam ne euh, li ñu deele ñoo leen ëpp kon ñu ñu contaminé ñu yor feebar yi ñoo leen ëpp lu tax ñu mën a nekk ci kanamu yooyu réew même fii sax ci Afrique ñu ne ñoom lu ñu doon seet mooy niñ ko yoree mooy euh, transparence maanaam di wax nit ñi bés bu yàlla sàkk mbir mi nu mu toll fu mu yegg nu mu amee ak fu mu jóge ñaareel bi mooy sensibilisation yi ñu doon def beneen bi mooy ñetteel bi mooy li ñuy wax communautaire kam kii euh, ni ci askan wi jàppee ñuy dugg fu ne euh, ba sax fu ñu toll nii Euh, kilifa diine yi ñu leen di gis ñuy masque ñëpp ànd ci loolu bokk na ci li tax euh, beneen bi mooy mbir moo xam ne bu doyaar ñu ne Sénégal moom day def test yi ci bés bi ñu jot ko walla sax bu bu bu laajee mu bu bar ñaari waxtu lay am ñu ñu génn test yi ñu ne loolu parce que am na réew yoo xam ne Amérique di nga toog semaine réew mu mel ni Europe à euh, France même chose di nga toog semaine am na yoo xam ne weer ngay toog pour ñu génnee te loolu lu mu gën a yéex feebar di gën a law ngay gën a mën a tardé pour jël mu ne ñoom yooyu yëpp lañu ñu ci critères yi waaye du ku ki gën a néewle ku dee wala du ku néewle ku am feebar bi loolu jar nañ ñu bàyyi ci xel ndokkeel ñi xam ne mooy pajkat yi ndokkeel ñi leen jàppale ci loolu surtout pouvoir politique yi jox leen moyens yi war taxawu leen ba ñu jógee ci ñetti centre dem ci centre yu ñu de traitement am ay laboratoire un peu partout yoo xam ne day gaawal test yi te loolu buñ ñu ko rafetloo du tere rek ñu ne dañu war a wéy ndëg di sàmmoonteex docteur yi li ñu wax ndax feebar bi ñoom lu ñu ci wax mooy kenn xamu ko am na lu ñu ci xam naam waaye kenn xamu ko te li xew Europe muy France muy Allemagne feneen ba ñu ngi confiné waat ngay gi dégg ay dix mille cas wala lu ko ëpp ba léegi ñoom dañu jaaxle ba def confinement loolu moo lay wan ne feebar bi wax dëgg yàlla umpal nañ ko lu bëree bëri. d'accord voilà. Euh, euh mais El Hadji Momar Samb wax nga fi Sénégal ak taxawaay bi nga xamante ne amee na ko fi mm-hmm. mais bëri na ci euh, opposition bi ak ñenn ci société civile bi mm-hmm. ñoom ŋàññi nañ. ni nga xamante ni moom la état bu Sénégal doxalee ci coronavirus bi ndax jàpp nañ ne état bi tegoon na ay mesures yoo xamante ni loolu dafay gën a nërmeelal li nga xamante ni mooy économie économie réew mi ñi jàpp ne état bi euh, gestion bi baaxul ci ni doxalee coronavirus bi euh, ñi wax loolu yow lan ban tontu nga si indi. lan moo baaxul ci gestion bi ñu ne. Euh, mesures yi mu jëloon jekk-jekk confiner nit ñi tëj région ak région. Euh, loolu bokk na si li naxasal euh, maanaam jéego yi mu tegoon daal du jéego yoo xamante ni tey jéego yu méngoo la ak li nga xam ne moom mooy réew mi. man de li ma gis mooy ñuy wax ne dañu échoué échoué ci lan parce que ñi jëkk a wax li ñu wax mooy bi ñu defee pas confinement amul sax ci réew mi état kii d'urgence la ñu def. couvre-feu def état d'urgence def couvre-feu tere ñu jéggi euh, diwaan ak diwaan. Euh, tëj marché yi luuma yi tëj marché yi yooyu mesure la ñu jëloon dangal def couvre-feu loolu mooy bi ñu jëkkee taxaw ci feebar bi loolu nag euh, ku ko ñi xëy na euh, ñàkk xam ak ñàkk maandu moo tax parce que boo màndoo te am ak tey am ak dal di nga xam ne lii jëkk a wan mooy feebar bi kenn xamu ko lu nu xës nga tël dal sa kaw xamloo ko li ngay jëkk a def mooy mën naa wax da ngay mel ni kuy euh, euh, fàggu fàggu bu gën a seere am na réew yoo xam ne dañu dañu def confinement confinement mooy kenn du génn ñun yegguñu ci confinement parce que bëccëg bi mën nga dox sa soxla ba benn waxtu bi am na ndëj marché luuma yu ñu tëjoon ñi ngaañ dañ ne lu tax ñuy ubbi à un moment donné dañuy assouplir loolu ñu wax ñu ubbi kii wal woyofal mbir mi dangal bi ñu woyofal ko yolomal ko loolu laa déggoon euh, ñu ne yolomal boobu baaxul waaye état bi xam ne moom moo defoon loolu def yolomal bi li li mu ci jublu mooy ñu xool nu ñuy àndeex feebar bi dundax feebar bi nit ñi mën a dem seen liggéey euh, lu may xam nga fa la nit ñi ci euh, réew euh, kaw gi ci la ñi di defe seen koom ci la ñi di suturloo te ñu bari ci réew mi fa ñuy suturloo ak fa ñuy ute koom bokkul ak ñi xam ne bu ñu toogee seen kër demuñu fenn weer wi dee ñu am seen salaire xam nga loolu wuute na te ñoo gën a néew ci réew mi ñu ne nañ yoolamal loolu ngir may nit ñi ñu mën a am fu ñu suturloo ndax boo dangalee di dinga di koomu réew mi noo xamee ne nii xëy na mën na indi sax njeexital bu bon impact bu bon ci paj mi parce que dafa am paj ak paj di faj feebar ba mu jural la beneen feebar mooy feebaru koom boo xam ne dootoo am sax moyen ngir dóol ko ci feebar bi loolu beneen feebar lay indi ñaareel bi boo seetloo am na jamono ñoo xam ne dañ ne ah dañuy dem ci jàkk yi dañuy kii ci mu jaral leen ñu génn xeex ñu yolomal te lii xam ne moom lañ moom la nguur gi waxoon parce que mbir politique boo koy seetlu walla décision dogal doo ko jàpp rekk ci njeexitalam tey ci saa si foog nga am ab diir pour xam li ñu waxoon ndax ànd na ak dëgg walla déet te fu ñu toll nii ak ku mënoon a laam-laame ak ku mënoon dingat dingat war nga man tey ne nangu ne mesures yu ñu jëloon yëpp mesures yu tegu ci yoon la may fàttali xale yi newoon uwaan ba mbir ma amee dégg nga coow li ñu ne nañ leen dellusi si étudiants yi newoon foofu foo feebar ba tàkkee mais nguur gi def ne déet duñ leen dellu si nañ leen bàyyi fa ñu ne nuñ dañ leen toppatoo ñu iir leen ànd ko chinois yi mais loo ci gis diingaat ñu def ay collectif famille yi jóg ñun ñi opposition bi di wax kii dafa soxor nangam nangam waaye mujj gi lu ci am famille yi seen bopp ñoo bind président pour féliciter ko remercier ko xam nga nag boo seetloo ci wàll woo gis rek di nga gis ne président wala nguur gi bu jëlee décision li tam mu koy jël du ñiy wax wala ñiy coow askani wi moo tax mu koy jël te moom dafa am gis-gis boo xam ne moo koy may ak xam-xam boo xam ne moo koy may yow Abdou Khadre li ngay gis fa ngay liggéeyee ak njaboot ngi nga fa ngay aw bokkul ak gis-gisam gis-gisam moo sut loolu xam-xamam moo sut loolu. ak information yi muy am. moom lay la wax te ndogal bu mu war a jël dina am ñoo xam ne ñooy tax ndogal boobu mu am fu mu ko teg mooy ay scientifique ay médecin waaye aussi ay homme de loi yi xam ne force force de défense et de sécurité diplomatie lépp daf ciy bokk. xam nga loolu li mu def xale yi xam ne mooy suñu xale yi newoon uwaan mënu koo def te diisoowul wax état chinois donc diplomatie day taxaw mënu ko def ci sécurité day taxaw mënu ko def te scientifique yi duñ ko wax dara yooyu yëpp moo tax ñoom moo ñu war a sut xalaat moo ñu war a yaatu gis-gis moo ñu war a gën a guddal gis-gis parce que fa mu tollu di gis di xool yow tolluwoo fa yow yaa ngi sa suuf te boo dawee aslëf boo fekkee ne nit ku gëm yàlla nga nangu nga dëgg waxuma mauvaise fois parce que nit ñi xam ne dañu am mauvaise foi maanaam euh, na yàlla baal gëmuñu dara seen seen seen bëgg-bëgg rek ak seen taxawaay lañu gis la gëm loolu boo ko seetloo tey ba ñu ne suñu koom sax li ñu ragaloon ne dina rës ba wàññeeku nekk ci récession boo saagal du fa yegg am na lu ko waral kon loolu dañuy wax alhamdulilah tey ba lii am ba ñu ñi kenn dootul werante ne ah wala dëgg yàlla feebar bu ngi wàcc ci réew mi. te xoolal rek même mbirum màggal gi am na ñu doon wax war ñu dem nangam ndànk di xataraayu kii kii ñii yor loolu ne ñun nañ ko yor yoreen woo xam ne dañuy dundax mbir mi aar ko fekk ko noo xamee ne dina am xëy na euh, mbir mi du yegg fañ ko fañ ko foogoon waaye loolu balaa ngaa wax ne kii moo am raison kii amul raison dangay xool njeexital bi ba ñu tegee 15 jours ba léegi lu ci am. moo tax àdduna bi surtout ñuy def politique ndaw yi laay gën a waxal euh, këtt na jonn wala rël rek ñu ne lépp tas na wala toj na wala buzz wala yooyu amul solo. nañ ko moytu am ak dal. surtout li ñu gën a jàng ci mbas mi mooy am maandute. parce que docteur yi seen bopp ñoo ñu wax ne li jàngaat bi ñu gën a am li leen mbas mi jàngal li ci ëpp solo d'abord mooy maandu humilité. xam ne li nga xam yaakaar nga ne xam nga lépp mais xamoo dara li nga xam yaakaar nga ne yaa ëpp xam ko mais xamoo dara mbas mi dafa ñëw ne leen yéen xamu leen dara. wan leen ko ñëpp. ma nag suñu docteur rek de adduna bi yëpp la ko wax ñii politique aussi mu wax leen ne xamu leen dara seen xam-xam am na fu mu yem man maa leen ëpp doole maa leen ëpp te wan naa leen ko. loolu jàngat boobu la ñu war am. d'accord euh, ba tey ci mbas mi euh, El Hadji Momar Samb gis nañ ne euh, mbas mi tax na àdduna bi am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum économie fii ci Sénégal tamit gis nañ ne économie réew mi dafa nërmeelu nan nga jàpp ne yan pexe la ñuy def ba relance économique bi mën a bar jéego yi lan moo ci sa xalaat. relance économique bi ñi nguur gi yor économie koom bi. alalu réew mi yor politique yi génn na benn yoon euh, ne yoon wi lañu war a jaar ngir relance bi mën a am waxtaane ko ak euh, gouvernement am waaye tin waxtaane ko te loolu mu gën a am solo mooy indi suñu slogan bi penco boo seetloo daf ko waxtaane kuréelu ñu yëngu ci koom yëpp yëpp ñu teg waxtaan ñoom ñoom ñu toggandoo benn bés ñu waxtaan lépp patronat bi syndicat yi ñëpp te loolu mooy réew réew dañ koy pencoo boo ko pencoo ba ñun ñi mën a xam surtout ñiy yor di dogal di jëf di liggéey di daan seen doole di indi alal di yokk koom bu ñu xamul yoon wi ngay jaar ak fa ñu jaar boo sàggantul du antu loolu moo ko waral kon ñun am nañu yaakaar ne li ñu jàpp surtout que ñu jëfe ko nag ndax campagne agricole bi boo seetloo euh, Macky dafa ubbi jël xaalis bu takku yóbbu ko ci campagne bi pour mbay mi rawatina mu dem bi mbir yi euh, xawee naat mu dem wër taw bi bari mu dem wër gis ne lii mu doon xaar am na lu ci commencé feeñ mi loolu euh, dañuy wax macha allah ndax li mu def du luy wàññi njariñ ci askan wi li mu def duy néewal doole askan wi li mu def mooy yokk askan wi yokk seen taxawaay yokk seen am-am yokk seen koom moo tax ñu ne yoon woowu bu ñu ko toppee am nañ yaakaar ne am nañ yaakaar ne dina jaral jural njariñ réew mi te li am solo nag ci politique mooy loolu da ngay xàll yoon teg ko ci xam-xam ak gis-gis bu leer teg ko ci luy ut njariñu askan wi njariñu askan ñun suñu ànd loolu moo ko lal te looy def aussi doone rek may président lu ma neex ma def wala lii laa di laay def bu sañ nga ko yoon may na la ko waaye looy def lu ne nga oo ci nit ñi waxtaane ko mais dama ne loolu ban réew nga ko gis ci àdduna ban réew nga gis loolu te kuy waxal dëgg nga waxal yàlla nga ne ñun ba ñu mag yi ba mu ñëwee ba léegi ndax lii muy def lu ne politique yi muy def ci wàllu ndox wala wàllu courant wàllu tali wàllu yoon wàllu luy naatal mbéy mi di ko mécaniser ba mu moderne luy yombal nit ñi seen taxawaay lu jële retraité yi ci pension ñetti weer indi ko ci pension benn weer lu ko jëlee ci fukki junni euh, pardon ñaari junni wala ñetti junni yóbbu ko ci lu dab dabal fukki junni dama ne loolu boo ko gisul dama ne gumb nga. d'accord mais est-ce que équité sociale am na loolu mooy. xam nga équité sociale du lu du lu sotti benn bés looy liggéey la cib diir ci lu yàgg mooy dafa am fu ñu newoon yow bu fekkee ne am ngay mbokk ci àll bi war nga xam ne am na fu ñu jógee 2012 am fu ñu yëg si tey bu fekkee na yàlla rek ngay waxal dëgg rek moo la soxal di nga xam ne lañu amoon démb li ñu am ren moo ko ëpp fuuf ngëneel li am ren ak ngëneel yi am daaw bokkul ci wàll yëpp nag. kon loolu boo gisee. kon ñu ngi tabax équité sociale. politique processus la doone bés sàngam rek équité bi am na yëpp jeex na déedéet dangay naa fii laa jóge amul woon équité réewu tax rek moo amoon sañ-sañu am ndox ak courant ak lépp lu ñu soxla waaye léegi mu ngi dem ci àll bi ci fànn yëpp nag même ba internet danga naa loolu yoon woowu mooy politique dynamique boobu mooy yoon woowu ñu xàll di ci jaar yoon mooy yoon wu baax wi maintenant matugul ñëpp nangu na parce que fa ñu jóge moo tax ñeen fukki at ñun ñu yor réew mi fañ ko fañ fuñ ko yóbbu ñeen fukki at li échangeur yi waroon am jamono yooyu amul ba Macky moo ñëw Aboubacar d'abord commencé Macky ñëw def ci li mu ci def mais kuy waxal dëgg waxal yàlla doone li fi am amul doone li fi am mooy yées li fi amoon démb même njëg yi xam ne moom la njëgu dund mag yi ba mu ñëwee te loolu def ci àndoon ak moom d'accord dañu ba mu ñëwee la yëpp wàcc fa mu ko teg boobu ba léegi jógewu fa pour l'essentiel d'accord jërëjëf euh, léegi léegi léegi léegi looy wax pour ba ko opposé mën nga wax ne waaw fii des na waa ok fii des na fii doyul fii matul waaw loolu moo tax day programme bi ma la doon wax sànq mu am solo mooy accès universel à l'eau mooy dañuy war a fexe liggéey bi mooy fexe ba ñépp jot si ndox accès universel à l'électricité mais loolu ku ne newuñu ci yoon wi da wax loo dëgg ah, <laughs> jërëjëf El Hadji Momar euh, Samb yow yaay secrétaire général bu RTAS yow la ñu invité tey si émission pencum réew mi léegi nag ñu wax ci remaniement bi président Macky Sall namm ndax gouvernement bi euh, daat na koy tas. Euh, ba léegi nii sampagu ko te presque 72 heures lan ngay xaar ci gouvernement bi Macky Sall di indi ak ndax jàpp nga ne jotoon na mu def remaniement yow si sa xalaat. xam nga loo xam ne dama la waxoon sànq ne moom kii yor réew mi. fa mu tollu du gis fa mu tollu du jëf la muy gis la mu mébét boo waxalee yàlla rek moo la ëpp gis-gis moo la sut gis-gis moo la sut xam-xam ci loolu bu ñu jëlee rek réew mi ndax ñii mu jël ñu koy liggéeyal muy góor gouvernement moom moo xam seen tolluwaay moo mën a natt ak ah lu mu waxantee woon ñoom fa ñu toll moo leen mën a évaluer yow mënoo ko. am na loo ci mën ci gis-gis looy gis la ñuy waxoon waaw ndax dab nañ li wala def nañ lii am na lu manqué wala de mais moom mii dundax ñoom ay bés yu ne di dundax ñoom ci liggéey waay waay kooku bu fekkee ne mënul am sañ-sañ natt gis yu ne naa jubbanti lii wala naa def lii naa soppi lii wala soppi lii kan moo ko mën def yow chef de chantier yow chef d'entreprise yow chef d'entreprise même sa rajo wala leneen. yaa mën a xam ñi lay liggéeyal fa ñu toll waaye du nit ki sa biti kon kooku surtout kilifa nga jox ko sa bopp ci kaw jox ko sa baat jox ko sa sañ-sañ sa mën man pour mënal la defal la kóolute moo dox seen diggante yaakaar mooy dox seen diggante kon bu ne am naa fu ma toll décidé naa rek ñii damay wàcc wàcc liggéey damay wàcce ñi seet neneen nu ma tabaxawaat équipe bi xam ne moo war a liggéey ci lii des ci mandat bi ñu may ko boobu sañ-sañ. waaye dem dama doon wax sànq rek mooy dellu si di jéem a dab dabal géntu jàmbur njortu jàmbur di ci wax waxu kasaw wa kasaw la te man dama yaakaar ne journalist li sacré li jëkk muy lu sacré loo xam ne kenn du ko lam-laame moom la war a teg suñu baaraam mooy les faits lan mooy jëf ji bu jëf ji taxawee nag nga nga jàngat jëf ji. waaye jëf taawul kii li mu def rek mooy dindi gouvernement te guvernement bu ñu dindi adduna bi yëpp war nga képp <laughs> suñu histoire war na leen loolu mooy noonu lay deme d'accord loolu lu ciy wax. lu ciy coow amul coow léegi loolu seen xaar ci léegi nag da nga naan lan laa ciy xaar. Mm-hmm. ah bu doon sama sago. gouvernement bii ñëw ñun RTAS bu ñu suñu RTAS suñu sago gouvernement boobu nekk gouvernement bu bu bu bu bu bu mën liggéeyam. bu mën a baral liggéeyam ngir dab dabal lii réew mi askan wi xaar bu dee ndaw yi pour emploi yi gën a bari ñu liggéey ba créer conditions yi emploi yi gën a gën a ñaax ndaw yi gën leen a ci formation yu leen di may ñu mën a am ay emploi renforcer donc li xam ne moom mooy ni ñu référaté njàng mi ak formation bi mënuñ ci sori parce waxtaan wi du yàgg. lu am solo loo xam ne mooy département bu ne mu am centre de formation professionnelle maanaam ñu ta tabax tàggat xale yi ci métier. parce que xale yu bari même dañuy am diplôme du ñu am benn métier benn benn métier même bu ñu demee bitim réew jaayaatu ay portable yooyu ay yu sew sew wala jaayaatu ay ay ay objet sans valeur loolu. dañu war a dogoo am moom te ñu ngi ci yoon depuis Macky ñëw ba léegi. ñaar li ñuy xaar ci moom mooy li xam ne mooy mbay mii war a dundal réew mi ñu dem ba autosuffisance war a am yoon woowu mu xàll ne ci lay ci lay te mu commencé di def di mécaniser ba ceeb bi mu am fu mu toll yeneen yi am fu mu toll ba oignon beex yeneen yi ñu mën léeg-léeg sax dañuy tëj bunt yi duñu ñu dara loolu ñu gën ci sóobu mooy gën a moom suñu bopp. mënal suñu bopp te moom sa bopp li koy wéral nag mooy nga mënal sa bopp parce que boo mënalul sa bopp doo mën a moom sa bopp ci wàllu dund ci wàllu courant ni ñuy tabax ba courant bi di gën a mën a am ba xuy kamaj bi fi amoon dootul am mu gën a wëy gën a am doole ci loolu d'ailleurs nga mën a def industrialisation parce que boo amul énergie bu doy courant bu doy nooy industrialiser buy transformer uh-huh. ñu yombalal ñin ñi ndek dund di continuer di gën a yomb xalaat bi mu amoon depuis 2012 ñu bokk ko mu koy dëcc jëfe ba léegi bàyyi ci xelam ba dara du yokk loolu nuñ ko wéyal. Ah, lu jëm ci euh, Aminata Touré mi ñu jëlee ci conseil économique environnemental. Mm. te yow nga nekk fa membre. lan mooy sa gis-gis. xam nga xam nga nit boo leen di ànd di liggéey te liggéey bi rafet aw yoon baax boo soñoon doo leen tàggoo waaye comme li ma la waxoon sànq kii xam ne moo ko teg foofa tegoon ko premier ministre jëlee ko fa teg euh, laata loolu di am sax tawoon ko ministre jëlee ko fa teg ko premier jëlee ko fa. teg ko conseil économique bu ñëwee jëlaat ko <laughs> da xaar rek. day xaar rek du la neex parce que foog mu am lu lu naxara tuuti waaye loolu sa sentiment personnel la rek waaye njëriñu réew mi moo am solo kon li ñu xaar ci ci gouvernement Macky bii mu war a teg mooy kuy dem ci loolu nag ba jeex tàkk ba a seet dara doo dégg coow li doo dégg ñi ñi mbëmb lu nekk ñu wax la ko di la saaga di teg sa der lu ne da ngay wéy rek di doxal li xam ne mooy njariñu askan wi waaw. léegi mais euh, xanaa gouvernement boobu dina tax sax immigration clandestine bi jeex. mais xam nga mënoo wax ne immigration clandestine jeex parce que am na loo xam ne ci àdduna bi yëpp la amoo ci maîtrise maanaam moomuloo ko yow na cee def la nga war a def mooy tëj fexe ba loolu du am parce que immigration clandestine ñu bëri na e eh, ñi xale yi dañu ndaw yi dañu ñàkk liggéey moo tax ñuy dem ndaw yi déedéet du loolu rek loolu ci la. waaye du lool rek mën nga natt sax ñaata ñooy dem par rapport ak ñu des mais lu néew la lu néew a néew la nit ñi dañuy coow rek xam nga man li may faral di wax mooy coow li ne ci réew mi lu ne tël rek ñu ne damm na buzz mais àdduna du noonu lenn mën na njaaxare la bon bon la mitit la waaye boo koy jàng ngir faj ko beneen taxawaay nga war a am mooy seetlu lu ne natt lu ne méngale lu ne te boo méngalee ñiy dem wax dëgg yàlla ah ñi fi de xale fi des mais mënoo ne euh, c'est une catastrophe maintenant ci weneen wàll le fait nit ñi dee loolu musiba la benn bakkan rek bu rootee musiba la te boroom kër bu ne kuy njaboot ku ne kuy njaboote ay ay doomam muy kilifa ci këram muy kilifa réew mi dina am loola naqari waaw loolu du tere nag yow nga ànd ak dal ànd ak tey tey bi mooy lii lan moo ko waral moo tax booy ma posé question boobu mën nañ ci dugg ba sori mais li ma ci bëgg a wax rek lu gàtt xaw ma temps bi fu mu jëm moo di ne immigration du tey immigration bi du démb te immigration bi du yem tey du yem ëllëg waaye ñun li ñu ñaan gouvernement bi et li ñu bëgg ci li ñu taxaw mooy lu ne mu taxaw ci taxawaay boo xam ne dina gën a mën a yokk ndaw yi ñu mën a des ci réew mi ñaareel ba ñëpp dañu war a nangu ne li fi am du coobare Macky Sall du jëfu Macky Sall du jëfu Abdoulaye Wade démb du jëfu Senghor barke démb jëfu mbir la moo xamee ne dafa laaw àdduna bi te li ñuy wax fléau la feebar la nga mbas mi niñ ci taxawee du taxawaayu nguur gi rek taxawaayu médecin yi waaye taxawaayu bépp citoyen gis nga ko feebar bii nag di di di immigration bi di mbëkk mi ñëpp ci war a taw def ko seen mbiri bopp parce que bu ñu waxantee dëgg am na ñoom dañ fiy bàyyi seen boutique wala bàyyi seen liggéey di wuti leneen ndax dañ yaakaar ne foofu mooy ëpp benn ñaar mhm. parewuma mhm. am na ñoo xam ne seen waajur ñooy te teggi tontine mhm. natt ñooy natt nattal ko nattal ko ne ko demal danga war a tekki nga sa morom male ah nga Ismaïla nga lële defar na këram yóbbu na yaayam màkk mais loolu moo fi am néew na ñoo xam ne euh, euh, du ñu bokk ci loolu walla am na ñoo xam ne bokk du ñu bokk ci loolu ñu bari ci liy dem lu ñu déggoo ak seen waajur walla lu seen waajur sumb sumbal leen ko yab leen mais loolu yëpp lu muy indi mooy war nañu mbir mi ñu taqali ko seet lu ne lu ko waral moo wax beneen am na ñoo xamee ne. réew kër goo dem man de am na sama kër. kër goo dem xale yi sax bu ñu amee bac dañu bëgg a dem. kenn du rek question ñàkk liggéey parce que am bac dafa war a dem jàngi mais lu tax mu bëgg jàngi feneen fu dul Sénégal parce que yaakaar na ne foofu la xam-xam bi gën a bare yaakaar na ne foofu lay mën a am yenn lépp yaakaar na ne et cetera et puis bëgg a découvrir. d'accord d'accord mbir mi du du lu simple lu complexe la uh-huh. te bu fekkee ne yow uh-huh. am nga volonté uh-huh. bëgg-bëgg yéene pour mbir mi faju fu ne nga koy jàppe mais ma dellu si rek daaneel ci wàllu mooy feebar la boo xam ne dañ ko war a waxtaane pour faj ko ci biir kër yi dañ ko war a waxtaane faj ko ci biir pénc mi dañ ko war a waxtaane faj ko ci biir réew mi état bi def ci wàllam communité bi ku ne def sa wàll xoolal sëriñ si ñu ni ñu taxawee si mbas mi bu ñu taxawoon noonu ci mbëkk mi comme mu waxuma mu dañ mais loolu yëpp day bokk ñu ràbb ko muy indi li aar xale yi parce que dafa am ñoo xam ne dañu métier woo crime maanaam di organiser wu di yóbbu xale yi di ci am ay cinq ay ay ay millions ay millions. Euh, jërëjëf euh, El Hadj Momar Samb ñu ñu jeexale ko nag IADA. initiative pour l'annulation de la dette fan ngeen toll ci xeex bi. waaw ñu ngi ci yëngu-yëngu mën nañ ko tudde sax ndax xeex sax dafay xew a tar parce que li ñu bëgg mooy fexe puus yëngu euh, yëkki ñin ñi yëngal ñin ñi Euh, mobiliser nit ñi ci réew mi ci Afrique ci àdduna bi ngir ñu puus ñi xam ne ñoo ñu tegoon bor bu rëy boobu ñu far ko fañ ko teg na xam nañ ko démb damay fàttale rek histoire deuxième guerre mondiale bañ ca jógee France ah Angleterre seen réew yi tas ñu war ko dafaxaat dañ leen defal plan Marshall jàppale leen mais dañu far seeni bor bor yooyu ñu laaj ñu far ko dañu nekk ci loo xam ne dafa niroo guerre sax bottul sàggan moo gën a garaaw lu tax ndax guerre la boo xam ne ki ngay geeral xamoo ko mënoo ko teg bët muy indi loraange boo xamee ne waxuma rek nit ñi ñuy faat mais day lor sa koom da koy nërmeel boo sàgganul sax mu toj ko gis nga Zambie wax nañ ne mënatul fay tey boo jàkkoonteex loolu ngeen jànkoonteex loolu war faj aar nit ñi génne leen ci feebar bi aar nit ñi ngir aar seen bakkan bëgg tamit relancer sa économie maanaam taxawaatal sa koom ndax koom mooy ndëgër laayu dund koom bu amul dëgërul dund ga dootul am solo wala dootul mën ne waxuma sax paj mi dootoo mën a faj kon loolu bu ñu ko bëggee yëkkiwaat ñu teg suñu gàdd suñu ndodd gàll suñu ndodd des centaines de milliards près de sept cent milliards yoo war a génn at mu jot loolu fu ñu jëm. mais est-ce am ngeen yaakaar. am nañu yaakaar ndax yëngal bi wax ji tax na ba yi nga G20 barke démb lañu ñu réunir le 14 octobre nee nañu ñoom diir bu ñu mayoon sax pour kenn dootul fay euh, euh, li ñuy fay par at léegi 6 mois la joxoon waaye yokk nañ ko léegi dañuy dem ba juin 2021 mu mel ni dolli woon nañ ci encore te seen biir sax am na ñuy xalaat di wax mbir moom di bind di wax mbir moomu. ki yor banque mondiale am na lu mu ci lu mu ci wax bu ñu demee ba Pape Jean François wax ci Macron ci boppam sax wax ci mais danga nga naa kon mbir mi quand am na ñu mu yëg-yëg bu ci ñun ñi am bu ñu demee ba ONU ñu koy wax te Afrique ba léegi ñuy fi ñu toll ñuy ngi gën a bari ñu koy wax ba barke démb ONU le président du Nigéria mais yëkki na baatam ci loolu donc yooyu du lu lu ñu war a xeeb lu ñu war a def rek mooy gën a dëgëral ànd bi. mais activité ngeen def ne ni. mooy dañu seeti nañu institution yu bari assemblée war nañ ko gis def nañu conseil économique def nañu haut conseil seeti woon nañu président lu jëkk seeti nañu également euh, ñi xam ne ñoo yor couleuru euh, cadre unitaire euh, de l'islam au Sénégal këru diine yi ci réew mi yëpp te ñu lëkkaloo te loolu kuréel googu moo leen lëkkale. seeti nañ leen loolu mooy wane ne ñun du ñu bàyyi kenn dañuy seeti patronat bi donte patronat bi mu ngi suñu biir de nañ leen seeti ñuy def assemblée générale le 7 novembre bi ci SICAT à 10 à partir de 10 heures pour partager plan d'action bu ñu génn maanaam eh, suñu doxalin ak suñu yëngu-yëngu naka lañ ko eh, fas yéene tërale def document ñëw war ko partager partager appel bi xam ne génn woon nañ ko déjà te fekke nga ko certainement partager li xam ne moom mooy suñu euh, euh, euh, plan d'organisation nan la ñuy kuréeloo nu ñu fexe ba kuréeloo ba ci commune yi ñu am fa kuréel nu ñu fexe ba génn ci réew mi nag dem ci Afrique gën a yaatu parce que am nañu suñu doomi ndey yu ne Afrique am na ñu ne sax Europe te ñu ngi jokkoo ñoom ñoom ñu ngi jéem a yëngatu ba ñuy lancé ñu ngi ci woon ñuy xool nu ñuy kuréeloo ba doole ji gën a rëy ba bu ñu taxawee di yëkki baat nit ñi mën ñu dégg. d'accord euh, El Hadj Momar euh, Samb euh, lan ngay tàggoo. Ah, li may tàggoo rek mooy oo ñun ñi ci li xam ne moom la ñu mbas mi jàngal mooy mandute mooy teey ak dal te wax dëgg yàlla ku am seetlu di gis ne muy kilifa diine yi di kilifa aada yi muy médecin yi. soignants yi yépp seen taxawaay loolu la wane timit te réew mi bu ñu ko bëggee yor te defar ko te nit ñi bañ seet ku ne sa bëgg-bëgg bopp sa ambition bopp waaye nga seet ambition réew mi ambition askan wi njariñu askan wi lu baax lu ne dañ ciy teg baaraam euh, dooleel ko fexe ni muy gën a amee solo ci réew mi li xam ne ne baaxul nga ne lii baaxul teg naa sam baaraam lii laa proposé pour ñu def ko waaye xaste bi saaga bi di nettali géntu jàmbur walla njortu jàmbur wala njort euh, sa njortu bopp di ngaw ngawee nit ñi di xawi sutura kilifa di xawi warma kilifa loolu defaram réew lii defaram réew daal ci yar lañ ko mën a defee oh. ci teey ci dal ci maandu te ñun loolu ñu bëgg ci réew mi ndax dafa am loo xam ne ñu bari duñu ko seetlu mais li ñu am réew mi li mu am ci jàmm ak dal am na réew yoo xam ne ñu ngi koy ñaan mënuñu ko am te ñu fàttali ne loolu balaa ngaa xam dayo bi nga ñàkk ko bu fi jàmm génnoon ba guerre ñëw ci ngay gën a soppaat ne li ñu newoon la ñu waroon dëgëral te li ñu wër uh-huh. dend bi ñu wër dara dara seddu fa waay waay nañu xool suñu bopp nañu xool réew mi li mu am ci alalu jàmm ak dal uh-huh. ñu dooleel ko dëgëral ko yéene yi ñu fas ko ci luy baaxal luy gënal pas luy bonal jërëjëf jërëjëf euh, El Hadji Momar euh, Samb yooyu nekk secrétaire général bu euh, RTAS mbokk yi li moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen àndoon Seck Abdou Khadre Seck Mamadou Diawo Diallo moo nekkoon ci technique bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm ba samedi bii di ñëw incha allah.